Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaïan hein, de la confiance renouvelée, merci de des like, merci de des abonnés, merci également du bail c'est du commentaire mbokk sénégalais fépp fu le mën 14 régions du Sénégal ruqaruxaat yi gox-goxaat yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd février. yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ki rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire génne lu ñu deful moo leen fa yóbbu boo xooxatal leen yàlla na suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëdd àdduna suñu borom xel leen àjjana fi daw si gaay te yéexe on avance ensemble dans la magie de eSport TV et de Baba Show l'actualité en contenu guy Free Sénégal actuellement ñu faisons voir waxtaanee li nga xamné gay gars jëm ci Sadio Mané magnifique bi bu mu mi final wax ci ñu gaynde bit choqueur yi nga xamné ne joy jooy xarit également à Congo leçon bi ñu jox Sénégal lool yëpp ñu fas yéene ko wasaare incha allah la laata boobu encore une fois gars suba inshallah vendredi bok plutôt 15h marche day am sitting day am ngir lan jëmmal li nga xam donc démocratie ci Sénégal dakk pour lo xamné ne jëm ci démon crasse bi nga xam ne moom fay daal dox jàppale aussi nga xam ne donc suñu euh, naataango yi waa Walf euh, TV ak wolf de manière générale pendant ce temps également conseil constitutionnel ñu ngi leen di xaar xam ne ndax yéen ay conseil constitutionnel juriste yi dëggantaan ñoo fa nekk wala bokk yéen ay euh, jégalu ci wax ji nag ay marionnette ngeen al aux du pouvoir yéen yéen a mën a wax ndax li Macky Sall wala bokk li Bator daal di wax am na wala amul pendant ce temps également gars yi dañuy vaar nee naa leen fii léegi dañuy vaar avant ñoo dugg ci sport bi vaar bi nag dañ leen di wax waa ji moom moo bokkoon ci ñuy voté li nga xam mooy décret bu annule élection yi fi ne nii nag li ñaan wax waxeet bu ngand la def mi ngi daw mi ngi jël responsabilité moom daw ne ki nga xam ne mooy donc soxna Bator moo amal lu ñu mel ngeen xool ko laataa ñu ko ne ci kanam jox leen actualité sport c'est le président lui-même qui a pris la décision seule unilatérale de wax je vais reporter les élections daf ko annulé sax parce que c'est-à-dire il faut que ça soit clair daf ko japp daf na rek dafa abrogé rek décret bi parce que bu abrogé bu féké dafa abrogé décret bi ça di convoqué corps électoral boy reporter directement c'est c'est déjà c'est immédiat c'est immédiat parce que amatu lo amatu lo document bu tax nga dem donc vous mënu ñu ko tek ci kaw député mom li tax mom mu ne day reporter mom mo ñu ko gën xam peut-être parce que ñun ni nga xamé ni kan mom dafa tap wa

la commission bi ñu créé dès l' instant que le magistrat Cheikh Ndiaye déposé plainte rek dañu waroon def instruction judiciaire. bu ñu defoon instruction judiciaire rek commission bi wàcc. mais defuñ ko. mais defuñu ko kan moo ko deful. moom xanaa. Ah, alors moom mi yilif parquet bi. dé parquet bi ah si. moom mooy yilif parquet bi. waaw kon moom la. waaw moom la bien sûr kon kay laay la rek. moom laay wax kon nañ ko wax keneen. parce que moom moo am droit wax parquet bi. Mhm. defoon instruction judiciaire bu ko defoon suba la commission bi ñu wax assemblée amatul. Mhm la commission meurt tout de suite donc pourquoi de defalee c'est que mon pendant ce temps également ki nga xam ne mooy donc Chelsea ah, problème bi gën a nga xam ne Tony kii nag di Thiago Silva jabara moo génn di xas di sànni xeer kii di Pochettino yóbbuwaat na Thiago Silva ban ah, ci match tey bi nee nag moom décision la jël ah, bokkul ak dara li nga xam ne mooy jabaru Thiago Silva li mu wax gën bokk seen soxna soxna yi gars yi nañu xool li ñuy wax <laughs> bu baax a baax a baax respect au Congo Congo nag dañuy joué fi mu ne ak ñoom Côte d'Ivoire jamono ji mais seen hymne national li leen def pour ñoom teewal jëmmal li nga xam mooy xaw seen dëkk ça ce sont de véritable patriote ngir taxaw seen dëkk bu ñu leen soxlaa seen hymne national lañ jël def ni geste bi parce que fi mu ne nii ci Congo tamit génocide moo fa am nguur ga fa nekk day nekk di def li nga xam mooy donc di boom euh, askan nga fa nekk moo tax daal ñoom ci seen hymne national lii la ñuy def ci seen demi finale bi la RD Congo respect assez joueurs yi nga xamné ne ñoom euh, né quand même ànduñu ak les xaw seen pendant ça également di fàttali jour bi bo len gay dans les années 2005 li nga xamné donc Côte d'Ivoire ah ba nga xamné guerre amono fa diggante ñom bagbo ak euh, wala Watar am ko fa ne génocide du bëri am fa ay secte am fa moom di euh, donc <coughs> Didier Drogba mo xex lu mel fexe ba lii di match éliminatoire coupe du monde ba amé ci Boaké Boaké nag jamono jooju moo nekkoon zone mi nga xamné fa la rebelle yi nekkoon ñu tuddi woon rebelle mu gagné tamit tok ne askan bi nañu juboo doon benn hein nguur gi def leen li nga war def foofu noonu aussi di wane également un grand joueur il faut le reconnaître également dans les grands événements pendant ce temps but choqueur bi suñu gaynde dañoon joué ak jongante xaritoo waajal seen coupe du monde bi Delen leen d'or, di Nyar, ñetti bal ci Italie ah, donc les Lions de la Teranga ah, dal ñoo euh, euh, am euh, ils vont faire un match pour Apprendre quand même compétition de commencer le Nigeria en finale le Nigeria au bout du suspense avec Victor Osimhen ñoom nak série gagné Afrique du Sud bi nga le éliminé également. également un match est passé un adversaire mais aussi di wax ci Sadio Mané bi nga entraînement exceptionnel en attendant gars yi wéy di like wéy di tourner en masse jàpp ci li nga xam ne donc combat bi su baaxee ci la su bonee ci ñun la Free Sénégal dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj.